Omar ak njub dey yàgg naa baax surtout jamonoy tey bari pexeek mën a layak am relation ak xam jamono yëpp lu mu baax baax nekk ci njuboo ko gën a wóor ndax jamono ji réseaux sociaux yi moo ko waral ak kamera surveillance yi foo nekk ak loo wax looy def rek ne la leer ne ñu ngi koy garder ci téléphone yi kon nag ku man jéem a jub jubóog boromam fu mu nekk xelam dal lu ko mooy bis dana dikk day la muy defak la muy wax ñu teg ko ci taabal bi génnee ko ci réseaux sociaux bi mu am gàcce ak àddina ak gu àllaaxira kon nag ñun jéem a jub ni ko yàlla digle lum digle ñu def ci lun man lum tere ñu bàyyi lépp